abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne. moo tax daal lii am na principe bu report bi ñun nee nañ non mais waruñu yem ci non dañu war a aussi. def ay proposition de sortie de crise très bien et, et proposition yooyu oui dinañ ci ñëw léegi tout à l'heure euh, ci proposition yooyu alors euh, monsieur le maire aujourd'hui euh, situation bi xaw nañu ko décrire un peu bokk na ci accusation de fraude bi nga xamante ne jiiñ nañu ko lu toll ci ñaar ñoo xamante ne ña nga ca conseil constitutionnel est-ce que loolu tamit warul tax ñu ñu defaraat carte yi taxawalaat ci processus bi loolu xëy na moom moo ñu indi ci reporter élection yi aujourd'hui non Fatou man damay réer un peu hmm. ci suñu réew suñu réew dañu am constitution mm-hmm. constitution moo ne tribunaux yi ñooy atte élection yi suñu réew moo ne conseil constitutionnel président moo koy nome mm-hmm. sept lañ sept yiñ nome nee na mënu leen fa jële mm-hmm. du dañuy démissionné walla nangam ñu tuumaal ci ñaar waaw xanaa ñaar yi ñu influencer cinq yi te amul réserve ndax bu ñaar yi ne woon waaw ñenn ñi ne déet du jàll te il faut ñu xool ne première décision bi ñëw Karim Wade mi ngi ci woon dafa am ku def recours ñu doog ko traité kon dama jàpp ne suñ ci tegaatee encore ne ñoom décision bi jël mënul am recours tuumaal nañ leen lii ak tuumaal nañ leen lale nañ ko saytu waaye duñ ko saytoo mel na kuy gàcceel cour bi. Mhm. parce que il ngeen xam tamit ne ñun léeg-léeg dañuy xam réew mu ne la fa am États-Unis tey lu mu metti metti metti doo dégg mukk ñu vilipender l'administration wala les juges doo ko dégg même policiers yi duñ leen vilipande duñ leen dugal ci mbir mi. man mm-hmm. nañoo juum nit jot juum mais dafa am ay ponk yoo xam ne nii moo yor moo yor moo yor moo yor yëf kon man dama jàpp ne dañ ko def prétexte rek pour reporter wax dëgg yàlla ndax bu fekkoon débat bi tey dañuy débattre ci nan lañ fexee ba ñi ñu génne ñu dugg man d'accord naa nan lañ fexe ba ñu def enquête pour ñii. ndegam ñoom lañ dénk sunu lépp sunu baat te conseil constitutionnel article baa ngi nii article article article soixante-dix-huit dafa wax ne waa conseil constitutionnel xam nañ bu baax danañoo dañoo war a nekk nit ñu xam luwaay ak engagement internationaux yi ak conflit de compétence euh, conseil constitutionnel mooy arbitre mooy c'est sûr que conflit de compétence mën na am léegi léeg entre législatif et exécutif mais conseil constitutionnel arbitre la mi ngi mel ni ñaari nit di jouer ci arbitre match bi ah nga jël kenn ne mi ngi am conflit ak ñenn ba loolu moo la jur pour ngay reporter élection mais kii moo war a yàlla yàllaa xam ne xew waaye ñun ci suñ diini ak ci suñ société dañuy wax toujours wala même ci suñ loi ci simple accusation waroo ci man a condamné nit te tey dafa mel ni Sénégal condamné na man waxuma la condamné na conseil constitutionnel suñ réew lañ condamné. mais mais pourtant premier ministre bi nga xam ne moom la ñu ko jiiñ le président renouvelé na ay confiance am ci moom. waaw moom laa la wax. te mooy xam nga paradoxe ak contradictoire mm-hmm. dafa bari mooy dama ne la tey man damay yaakaar ne léegi agression yi soo agressé première ministre laal nañ na ko soo laalee laal nga conseil tey li nekk sax ngay seet débat yi ci yi ci yeneen. Mhm. tout le monde même suñ partenaire international une des qu'est-ce qui arrive à votre président parce que président de la république rôle am mooy arbitrer et jël décision waru wàcc en situation muy flotté waru te wàcc situation muy flotté daf ci war a jël décision mu leer ñu ne lii la lii la gëm waaye décision boo xam ne gaa yee ma ko def loo gaa yee wax nii gaa yee wax loolu ah ñun de. duñ ko def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa def na ko wa shaawiru fil amri del diisoo fa izaa azamta fa tawakkal ala Allah na jël décision te wekku ci yàlla mhm. yaakaar naa fi ne nii nag moom moo war a jël décision bu fekkee li ko li mu gën a bëgg mooy reporter élection mu expliquer Sénégalais yi ne leen reporter. waaw mais expliquer na leen ko samedi. non non non non non. leeral na joxe na les raisons yi ñu yegg ci reporter. waaw waaye xam nga. dama yaakaar ne dama yaakaar ne gis nañu quand même benn gis nañu ministre Ismaïla ku nekk yaa ngi wax. raison yi nga xam ne moom moo tax ñu egsi ci report bi mais boo reporté loo xam ne daf la arrangé man dëgg-dëgg yéenewuma ko ko président lu ne wax nañ ko ko ker ba mu déclaré ne duutuma nekk candidat mhm. waa partem tàccu àdduna bi tàccu Nations Unies tàccu ñëpp tàcc mais imagine loolu mu mënoon ko topp bu doon moom bu ñuy def élection sax guerre day am ci dëkk bi sax na ko def bañ xam ne moom def na ko waaw def na li mu war a def parce que lii mën naa indi musiba bu ëpp loolu ndax mën nañ àgg ba le 15 décembre musiba bi jur ay musiba ay musiba yu. mais ban musiba ñoom boo leen déggee ñu ne dara xewul def nañu ko. non musiba musiba conséquence institutionnel constitutionnel man xam nga. Mhm. wax naa ko fi waxaat ko fi. Euh, ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da daw. oui xam nga dañoo tuutal loi chambre de commerce yi. te xoolal tey problème yi Sénégal am ci économie ñu naan prix yi lii la du lii investisseur lii la du lii fan lañ war a def lii du lii. Mhm. loolu lépp soo demee réew yu développé loi yëpp mu ngi ci loxol chambre de commerce ba France gi France amul ministre du commerce demal nga xool amul ministre du commerce amul ministre de formation professionnelle création d' entreprise engagement yëpp chambre de mhm. commerce. ñu waroon ko renouveler 2014 ñu ñëw créer benn loi ne dafa am ay problème man boobu nii laa ko xeexe woon ne leen nañ dem renouveler ba pare régler problème yi. Mhm. ñu ne déedéet teg ko boobaak léegi ñaata la 2014 on est 2024 10 ans 10 ans. et sur ça qu'a amené xale yi dugg ci géej gi loolu moo indi foo jógati dégg association gauche à droite moi je pense que nit ñi duñuy du nit ñi tamit duñ leen teg ay mala nit ñi dañuy xalaat mhm. dañuy xalaat président la république bu àndul woon ci lii du am bu ci àndul woon du am dara imposé woo ko. da nga jàpp ne prox ndollu la euh, bu PDS tijji ak ñenn ñi doon wax waxu report mu jafandiku ci aujourd'hui c'est normal que PDS ubbi ko c'est normal que sëriñ bu créé situation c'est normal ku ne créé situation mais réew bu amee conseil constitutionnel buñ ne lii. Mhm. bu ko defee kenn waru ci teg baat dañoo war a wóyal loolu ba pare doog di occupé wu ci conseil constitutionnel. ndax ëllëg man ne ah, député yi euh, xawma loi bi mën nañ ko mën nañ dindi conseil constitutionnel wala déet mais réew mi mën nañ ko mais ñu jàpp ne également bu ñu ci demee élection dañu am crise post électorale ban crise mooy am coow mën am nit ñi duñu d'accord parce naan conseil constitutionnel dañ ko mais Amérique Amérique wala xanaa ku joxoon ndam beneen parti bi mën na ci am problème Amérique crise ba fa nekk moo gënoon a rëy mais kan moo décidé l'exécutif dafa xëy décider c'est-à-dire l'administration dafa xëy décider crise ba fa nekkoon moo gën a garaaw président bi ñu gañe ko mu a gañe wuñ ma déwu ma yebal ay nit ci assemblée bi ñu dal c'est le contraire moo am ci ñun fii ñi war a régler crise bi ñoo créé crise bi ñi ko war a régler moo ko créé Amérique jëlal rek c'est la même chose Amérique bu amul woon tey bu doon tey li am Amérique Afrique la am mhm. guerre civile moo fay am wala président bi mooy toogaat Trump mooy toogaat waaye dañ ko dañ ko bale mu dem ñu teg suñ yëf ba pare topp ko ñu ngi koy topp waaye nekkuñ fa tey di jaxase situation bi parce que loolu day indi problème yu bëree bëri en tout cas de man li ma gëm. Mhm. mooy buñ nangoo mu dem quinze décembre sax élection yi di am ñoo toog fii di ko waxaat. du am le 15 décembre. du am man moom loolu maa la ko wax. parce que lan lay amee mais est-ce que bu man bu ma demaatee ngeen ne ma da ngay def parrainage est-ce que su ma taxawoon fii ne juge bi dañ ko corrompre lan la ñuy def. Karim Wade ëpp ma droit. justement parce que yow aujourd'hui dañ ne dañu arrêté processus bi mooy maanaam li ngeen defoon yépp nen na da ngay wutiwaat parrainage. Euh, waaw mais ak lu mën a am rek. dama ne la waxuma la man. Mhm. mais keneen ku mënti doon bu buñ la génnee. nga ne yow tamit dañoo corrompre processus bi est-ce que bu boobaa jurisprudence bi day appliquer wala déet loolu laay wax dama ne la tey toll na ci Sénégal foo xam ne nii simple accusation nga ne juge bi dañ ko corrompre. rek leer na man ma benn preuve soo gisee sax affaire Ousmane Sonko amoon na ay début de preuve dem na ci euh, suite béti jël nañ procureur def na rapport enquête am na dara am na ñu ne nañ ko yóbbu assemblée am na mais tell dañoo corrompre pour ñaari juge rek. Ah, on a parlé du cas de Rose Wardini aussi nationalité. waaw mais xam nga loolu président jël na ci loolu également gis nga loolu lu mën a nekk la gis nga justice. Mhm. personne ne peut pas que justice juge bi li mu def mooy alxuraan mënu ko. parce que looloo tax juge léeg-léeg mën na génn ordonnance nga dem expliquer mu rétracté Rose Wardini bu kenn defoon recours bu kenn defoon recours ba recours bi génn. Mhm. mën naa am juge yi danañ ko danañ ko génne. Mhm. mais tey nit mën na la mën naa yow mën nga am dëgg délai appel bi jeex defoo ko ba délai bi jeex mais même boo andiwaatoo àdduna ak li ci biir sax c'est trop tard léegi nag ndax waa ji ndax Rose li mu def. Euh, par parjure wala lu mën di doon loolu lu ñuy traité la mais teewul mu nekk candidat parce que dañu wax ne liñ décidé kenn mënu ci dellu si loolu lañu wax lu ñu wax ne kenn mënu ci dellu si mais bari na ay nit yu nekk ci prison yi defuñ dara bari na ñu libéré te tey te tey def nañ dara te dañu wax ne euh, juge bàyyi bàyyi xawma lan bàyyi euh, dix Euh, yu coupable moo gën ngay tëj benn bu bu innocent mhm. kon nag man li ma gëm mooy suñ bëggee suñ réew suñ bëggee suñ réew ni ñu respecté président de la république respecté ko assemblée dañoo war a respecté les magistrats dans leur parce que même décision yi nga xam ne nii si fay wala kii jëloon na ko l' na du ko appliquer mais c' est la chose très bien gis ñu différence bi. Mhm. c'est-à-dire Sénégal loolu daf fi yàgg am man ñun ñu ngi nii comme ni ma la wax chambre de commerce am nañ ay décisions yoo xam ne Cour suprême moo ko jël. annuler ay élections ci chambre de commerce de Dakar annuler décret présidentiel 2014 ba léegi nanguñ ko appliqué. alors que les décisions de justice s'imposent oui. s'imposent alors oui alors Moundiaye tout à l'heure yaa ngi wax ci conseil constitutionnel euh, parce que bu ñu xalaatee également yi fi jot a jaar ci ay loi am na ci yoo xam ne euh, conseil constitutionnel dafay déclaré wu incompétent euh, est-ce que xalaatu leen ci bii nga xam ne yéen a ngi naan conseil constitutionnel mën na arrêter cette loi bañ rejeté ko bañ ko nangu pour que ñu dem ci élection jàpp leen ne aussi que conseil constitutionnel mën na déclaré wu incompétent ci loi bi nga xam ne voté nañu ko à l'Assemblée nationale moi je pense que tout peut arriver parce que c'est vrai yu si bëri dafa naan euh, euh, dafay déclaré wu incompétent mais bi c'est un cas exceptionnel parce que bii ma ne mën na yu si bëri dañ ko si saisiré ci ay loi constitutionnelle yi day wax que day déclaré wu incompétent mais bii c'est vraiment en période de crise parce que le conseil fu mu toll nii euh, mun na si génne génne ñit ñi parce que conseil mën na jël ay décisions de régulation parce que bari na fii jurisprudence et puis loolu la jurisprudence jariñ situation am euh, ñu saisir ko mu mu apprécier parce que du yem ci rek sur des euh, sur euh, day dem au-delà des textes quoi xool contexte bi xool situation bi jël ce qu'on peut appeler une décision de régulation parce que situation bi foofu la toll mm-hmm. parce que tey Euh, dafa am un genre un conflit entre l'exécutif euh, et euh, le pouvoir judiciaire et aussi le pouvoir législatif donc muy un conflit inédit parce que bon c'est vrai mën nañu euh, wax euh, dem ba 62 dem ba 67 du temps de Senghor tout ça. mais ban conflit la ñu am. mais conflit bi xam nga la. man ban conflit moi je veux ban conflit moo am entre l' exécutif et législatif. ok waxuma l' exécutif et le législatif. non non entre le législatif et judiciaire ban conflit. non xam nga conflit mooy lan euh, le pouvoir judiciaire mooy la le conseil constitutionnel. waaw il prend une décision. waaw mooy que ne ñii ñooy candidat yi. le pouvoir exécutif. Hmm. jël décret. Hmm. décret boo xam ne euh, loi constitutionnelle la muy décret d' de L euh, L 167 mu abrogé décret ba te décret d' application la bi mu abrogé décret bi nga xam ne mooy convoquer les les électeurs lépp lu conseil def da koy naxasal ça veut dire que yow. est-ce que tey di nga mën a dem nekk candidat te pourtant conseil décidé na la. kon conflit amul. xam mais conflit la parce que parce que bon xam nga conflit mun nañu wax ne mooy réeroo rek. réeroo ah, réeroo am na fa. parce que tey jii euh, bu conseil constitutionnel jëlee dogal ça s'impose à toutes les autorités. Mm-hmm. normal. Mm-hmm. alors mais tey lépp lu jëm ci euh, contentieux aussi. ñu jëm ci élection c'est pas l'exécutif qui doit la régler mais tey lan am conflit am na contentieux am na ñit ñi ñëw dañ maa sàcc dañoo manipuler sama clé dañoo corrompre ay juges conseil constitutionnel war ci àddu mais kan moo ci àddu assemblée nationale ak l'exécutif man suñ ma nee contentieux am na j'accepte waa donc xam nga conflit n'existe pas oui xam nga ñaar yu wërta am conflit mooy kii arbitre la mën nañ wax ne tey xam nga te euh, décret. xam nga mën nga ko tuddee contentieux mooy conseil constitutionnel moo war a arbitrer. entre l' exécutif et législatif man bu ñu ne woon entre l' et législatif am na conflit. Mhm. ñoom ñaar am nañ conflit mais conseil constitutionnel mënut a am conflit. xam nga ni avec l' exécutif ni avec législatif. da nga ne warul am cest à que warul am conflit. mënut a am. bon mais mais lan la ñuy dund nii la ñuy dund. Ah, waaw mais dañ ko ko tuddee conflit waaw waaw con tuddee ko contentieux. waaw contentieux. bu la neexee bu la neexee contentieux entre les candidats. léegi yow nooy définir ay conflit lan mooy conflit. conflit. waaw. Euh, bon dama ni ma la ko mën a waxee rek. waaw mooy euh, mooy ñaar ñu jote. waaw pour man. contentieux mooy waaw pour man. lan mooy différence bi. waaw contentieux. mooy ku def dara nga hmm. contesté li nga def baaxul mooy loolu juridiction bu ne nit ku ne am nga droit <laughs> waa xa ma xam nga hmm. euh, deux juges mën nañ am conflit hmm. conflit de compétence ñuy xëccoo kii ne maa compétent kii ne compétent wu mais entre assemblée nationale parce que conseil constitutionnel du voter ay loi du voter loi du du du loi moom day arbitrer Mhm. day arbitré. maanaam yi nga jàpp ne war woon bokk ci coow li waruñu ko waru ci woon a bokk dama ne la conseil constitutionnel du voter loi. Mhm. du exécuter loi. Mhm. waaw day arbitrer rendre un arrêt. alors que malheureusement. dugal waaw rendre un arrêt que tey dama jàpp ne arrêt bi mu rendre loi bi ne. loi bi ne. ra bi muy rendre kenn mënul am recours ñee ñëw dugg ci compétence am. daal di koy décider à sa place. mooy législatif moo dugg ci compétence am exécutif jàppale ko ci ñu fekk ko ci compétence am fekk ko fa. man loolu loolu laa gis waaye conflit man man mënu ko tuddee conflit man dama ne euh, PDS Karim Wade sax du PDS. Karim Wade en tant que candidat parce que nit ku ne mooy nekk candidat. am na contentieux avec le conseil constitutionnel. Mhm. amul contentieux sax ak la dafa am ay preuve ne dañ ko dañ ko dañ ko kii il n'a qu'à porter mhm. mooy li gën a gaaw mhm. plainte moo gënoon a gaaw man plainte boobu buñ ko introduire woon commencé def ay enquête ci ñoom mhm. man je me dis am nañ réew am nañ réew nii da jàpp ne amuñu réew non amuñu réew ah kon constitution bi xotti nañ ko parce que constitution mooy suñu mooy suñu alxuraan ñu baal ma parce que mënuma koo màngaleeg loolu mais ci la ñuy àtteewoo mhm. mais tey dafa mel ne dañ ko teg fële. dañ ko xotti maanaam. waaw dañ ko dañ ko teg fële. Mhm. di wax leneen man loolu laa mhm. jàpp. xam nga ñi ñii ñooy jàngkat yi waaye ñun jàng nañ ñun droit islamique dañ koo jàng. te droit islamique ak lii ñoo yem képp. ñoo yem ba yonent bi sax sallallahu alayhi wa dafa am règle yoo xam ne nii ci yàlla la jóge yàlla moo ne lii maa ko wax. mu ne bu ma ko waxee amul discussion kooku mooy nit ñuy julleeg nit ñuy woor mais règle société bi am na ci yoo xam ne nii c'est c'est discutable parce que mm-hmm. omarum ibn xataat da daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu génne dara mu ne ko bii d'accorduma ci gars yi ne ko Omar daf la weddi mu ne déedéet Omar ne su jógee ci yàlla waxal rek bu dee yàlla moo ne la dañuy applique on applique sans mais bu dee xalaat la nañ ko xalaat ba teg ko kon man damay jàpp ne tey conf ko ko tudde conflit amul conflit y a un contentieux entre un candidat hmm. et le conseil constitutionnel te loolu dama la jox exemple rek mais même contentieux tey même Ousmane Sonko am na ay député hmm. mais il pouvait dire que dañ ma xañ sama àq mais contentieux lay tijji parce que nee nañ ko amoo recours amoo recours d' accord loolu d' accord nañ mais léegi boo xoolee ne ñii dañoo jalgati yoon